alors on en revient ah. au cas Karim Wade parti démocratique sénégalais alors ñoom ñu euh, ñaxtu euh, ne dafa am corruption au conseil constitutionnel ñu accuser deux juges accuser le premier ministre candidat euh, de Benno Bokk Yaakaar sur la base de ces accusations et supputations ñu mettre en place un nu mu tudd ñu mettre en place un, groupe d'enquête nu mu tudd une commission d'enquête parlementaire Euh, chose bizarre, euh, ils ont l'appui de l'alliance euh, pour la l'alliance pour la République. Euh, demande d'enquête parlementaire boobu moo généré euh, proposition de loi bi reporter l'élection présidentielle. Aujourd'hui, on ne parle plus euh, de cette enquête parlementaire, elle a été bouclée parce que y a tudd une procédure judiciaire bu ñu mettre en en en branle. mais est-ce que loolu yëpp am na lu ci fondé wala euh, kii politique la woon rek manœuvre politique la woon rek. non lu ci fondé moom enquête bi moo ko mën a wax est-ce que kii def na kii deful kii deful loolu enquête bi moo ko mën a wax loolu vraiment mënuma ci jël risque ne lii fonde na wala lii fondé wul parce que ñi lay wax it boor bi ñu bokk rek la lay waxee. waa ñi bokk ci PDS dañ naan la lii am na lii xew na am nañ tel audio am nañ tel élément. lii moo xew kii moo yóbbu xaalis bi kii la àndal firme bii lañ am loolu la lay wax voilà ñeneen ñi la loolu mosul am donc loolu mënoo cee basé wu daal di am benn opinion ci loo xam ne ni wóoru te ba muy am fekke ko. mais lan ngay tontu ñi jàpp ne c'était une simple manœuvre politique visant à renforcer le dossier euh, du report de de de l'élection parce que dañoo wax commission d'enquête euh, xippeeguñu. Euh, Euh, ñu dugal projet de projet de loi euh, pour euh, reporter l'élection no ce qui est sûr dossier la moom parce que Karim dañ ko annuler dañ ko dañ ko dañ ko invalider dàq candidature am ci anam yoo xam ne man dama jàpp ni jaaduwul man en tant que li ma jàng ci droit bu ma ko doxalee ci cas Karim dama jàpp ne ni ñu dàqee candidature am jaaduwul man loolaa gëm donc le fait que mu am groupe parlementaire dem jaar ci pour xeex créer dossier loolu dossier la maintenant nag dossier boobu wakkatu ba daje gestu la daje naag moment boo xam ne arrangé na Macky Sall mu jël ay député am boole ci pour mën a xam nga rek politique moom yaa am gën a xam politique moom taf yëngal la